doon salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di di leen ziar ki ngeen jàkkaarloo na xam ngeen ko muy Moussa mu jóge ci combat digganteem ak Garga Mbossé mu ñàkk combat boobu noonu 2011 nag la gëjoon a daan suma daanu suma juumul Tyson Balla ah. ci la daan woon digganteem ak Malick Niang mu toog huit ans daanuwul waaye nag Garga Mbossé këpp na yalwaanam gannaaw laaj na ko fu nekk wax na fi daje nañ fi mbapat Garga daw Garga war ko boppam keroog dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre Lutte TV point com ñu waxtaan ak moom ci combat boobu ak fan la jëm après Moussa Ndoye maa ngi lay nuyu. aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw mi sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal suñu waajur bu góor yàlla na ko yàlla yërëm di ñaanal suñu waajur bu jigéen yàlla na fi yàggul lool ànd ak wér di ñaanal kilifa diine yëpp ñi jiitu yal na yàlla yokk seen i leer taaf seen barke di ñaanal Serigne Babacar si yal na yàlla yokk ay leeram taaf ci barkeem di ñaanal suma bàyyi bopp Baye Ablaye Dieng yal na yàlla yokk ay leeram taaf ñu si barkeem bu baax a baax a baax a baax di ñaanal njabootam gépp nag yal na yàlla teg si ñoom loxo teral leen waaw di ñaanal képp ku mu fi bàyyi yal na yàlla teral la ku mu yilifoon rek yal na yàlla dafa la jàmm di nuyuwaat waaye rax bu baax kilifa yi fi nekk yëpp nag bàyyiwuñu kenn di nuyu suma côté staff jël nuyoo bi jox super Nguuda Aliou Sarr Souleymane Diaw Momadou Sow ak Ado Assane ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu Ali Ali Dia di nuyu Ndongo Faye Pape Diouf Tigana Alain ñoom ñëpp maa ngi nuyu ak waa dimanche matin bi ñëpp maa ngi nuyu di nuyu fan si club bi si nii Serigne ak képp ka nga xam si fan si club Moussa Ndo nga bokk nuyu suma rakk yi nga xam ñoom laa nekkal muy Omar Fall Ablaye Youssou. di nuyuwaat yéen waa Lutte TV maa ngi nuyu baax a baax di nuyu suma papa Baye Ibou Diop Baye Pape Sini ak Baye Pape Diop ak képp ku ne ci biir kër gi maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm du encore du nuyuwaat maire rax maire Yarax maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waaye rax bu baax a baax a baax a baax nag. waaw. koor gi daaw dañ la fi fekkoon kooru daaw nga jóge ci ndam lu rëy sa diggante ak Lac ñu wax la Garga Mbossé nga traité ko fi di ragal bëri woon na fi mbapat ba ma déggee dafa daw. lan moo taxoon nga doon attaqué Garga Mbossé da ngaa bëggoon combat bi taxaw wala dafa am loo gisoon ci Garga Mbossé. man musuma attaqué mbër damay wax euh, li làmb wax rek làmb moo ñu euh, ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah parce que contrat bu taxawee mbër contrat bu taxawee waratoo la mais tamit du noonu wax li jaay sa wax nañ lu jaay suñu ba yàlla may na ko ndam moom ma koy ñaanal yàlla na ko jik mu seeti leneen ma seeti leneen. combat bi mu taxaw ci lan la fekkoon mu Ndoye. non comment ma man man amul pare man du ma man du ma pare mbër du préparé day pare waxuma la ay mbëru ndaw ma magasin man mbër du préparé day pare man entraînement du ma si yaafus. non mystiquement bi ngay jël Garga Mbossé parce que tamit dégg nañ la suñu micro ba tey li nga doon waxee danga nga bëggoon combat bi taxaw. mystiquement comme bi muy taxaw. ci lan la fekkoon Moussa Ndoye mu pare te xam ne buñ ko bu arbitre génnee digganteem ak Garga Moussa da koy daan wala lan la woon lan moo tax nga bëgg combat bi tax. préparé ba pare ko kon dañ may dóor ba muy damay toog ñu préparé wax waxtaan ko si deux mi man musul combat musul taxawee si sama si man ay deux jours trois jours déedéet combat day taxawee si man ay deux heures de temps trois heures de temps bu baree ba bari douze heures combat si man musuma toog man Moussa Ndoye ñu naan Moussa nii wala Moussa Ndoye ne la Moussa Ndoye lii déedéet parce que su ma demee si mbër ni ko ñu ngi koy wax sama sama staff dañ koy wax duñ ni Moussa Ndoye préparer bi ba pare si mbër moom leer na ma Moussa Ndoye mi jox ma ko loolu kay dañ fekk am mbaa nga fuusaa jox la ko man day métti ci tartar ba ma xool mu métti man ay lambu jànq bi sama carrière ba ni may màgg ba nii ba nii lambu jànq laa bëre musuma bëre lamb jànq xam dañ koy dañ koy wax naan non non non nee na déedéet ay combat jànq ay pois lourd tol nu la neex di bëre lu la neex di bëre man duma bëre cuune yàlla dogal combat bi taxaw ngeen waajal yéen ñaar ñëpp ba jour ji le 28 avril nga dugg si ci stade bi ak bi nga doon àndal doonte doon nañ ko gis ci say combat mais bii daf cee rawati lan mooy waral loolu. loolu père Ngouda la rek moo yoroon moo yoroon benn di moo yor xabtal bi. xabtal bi xam naa naa si may gars yi sax site internet yi naa si may tuuti waaw naa la may si xabtal bi de xabtal boobu moom boo ko laalee xabtalu moom amul même te ñëw bi ma xëyee 9h ma estaat ba ñu ma calmé ba bëree ba pare lay ma calmé calmé nañ ma si lan mooy santal da nga waroon daanu te daan na la. mais estaat kay daf ci rawate xanaa da amaatoon combat suba suba suba ma defaat ko xanaa ñu bañ indi butéel boobu estaat de war a bañ ma ko sangaat buñ ma ko sangee ci kër gi sanga ma koy set noonu laay defaat de. mais est ce que nekkul deret bu mu sàndooy moo moo tàng rek. gars yi ñooy wax loolu rek deret moom deretu deret la sama deret nag am na gisee moom kenn mënul téyeti mu sàndooy loolu moom da nature la. arbitre génn sa diggante ak Garga Mbossé nan nga bëree combat bi. waaw bëri nañ déglu naa ko toll ak ay deux minutes deful xaw naa daw def gauche gauche doo doo droite defaat ko répété waat ko mu def ay reculam taxaw liir ba man li ma man li ma gis mooy man naa dem def lépp mu jeex ñu ni Moussa Ndoye ñu ni si stade bi fecc na bàkku na bëri na daan na dem na ñibbi waaye budul fay man loolu laay bëree saa su ne heure muy bëree dama naan muy lay indi Moussa Ndoye nii lay def nii lay def nii lay def daan amul benn mbër mu mos a bëree ñu ne Moussa wane na ñàkk fayda si bàkkoom si toucham si doxam si biir géew bi si ba si géew bi ba si face à amul. ku mësu bëral jox nga ma cër mën nga wax nag xam nga wax nit ñi dëgg dégg ñi wax ci combat am ñu ni non dafa manque respect non non parce que la da jaay làmb ji promo de promo la li mu soxla mais pour gis Moussa Ndoye nii non non non loolu amul manque respect mosuma bëri nit que man du ma ko def du ma def def loolu mbër. mais ci biir combat bi lan nga def bañ daal la. bi mooy bi may mbott jàpp ma damaa mbott jàpp ma. waa boobu moom def naa erreur moo tax dañoo jàppante mu xàcc mu daw mu daw xàcc plaqué di ñëw ma ya ma yàkkamti ko topp jàpp ma mais su ma jàppoon duñ wax wala su ma ko daanoon tamit yor naa entraîneur yoo xam ne damay daan sax def erreur ñu woo ma wax ma ko ma daanu def erreur ñu woo ma ma ko balaa ngay tëdd sa la dañ lay wax ne erreur bi ak ak bii nga def loolu moom dama koy si gërëm sama sama côté làmb ñi si ñi ma ŋànk si côté boobu parce que man ñun su ma supporter sax ay ay mbërëntaan la samay supporters biñ ñëwee dañ ne yàlla moo la daan mais erreur bi def nga ko man nangu leen ko nag tey bu ma ñëwoon yaraax ma gis benn nit mu ne ma da nga def lii mu wax ma wax ju naqari kon boobaa dinaa xool leen lu may def mais bi ma ñëwee dañ ma teeru tatagal ma toog ak man sa bokk ak man affaire bi ba tey tey tey tey fi ma waxee yow nii xanaa li may dem nii war den woon ginnaaw pour quelque temps rek moo mooñ tàqale mais suba 10 heures lañuy ñëw sama kër su ma yeewoo une maak ñoom ñooy nekk comme si koor lañ ne ñooy nekk ñooy nekk ñooy nekk ba ba tëdd ñoom ñu génn ma tëj sama bunt musuma leen gunge. mais ci côté bëreem Moussa Ndoye est-ce que xamoon na Garga Mbossé dëgg-dëgg xamoon na ko ci côté bëreem. non man nag ñun musuñu am mbër suñu entraîneur jël téléphone am nii di xool YouTube ni suñu mbër mi ñuy bëre lu lay bëre. mais est-ce que loolu jaadu na tamit. non ñun ay mbë ay mbërëntaan la ñor ay mbërëngaan la ñor tamit de te man dama xam li ma wax. baat boobu du ma ko de ndaanaanu ndaanaan du deñ parce que dama gëm te dafa nekk. ndaanaanu ndaanaan yi keroog daje na daje na ndaanaan. waaw da non mun tooru sama mënul nekk ndaanaan moom moom ak lu mën a doon nag jour boobu la doon sama ndaanaan ndax daan na Moussa Ndoye man nangul ko ko lu ma gëm la nag ni daan na ma parce que dama daan ay nit sant yàlla yàlla na yàlla yokk huit ans may jooyloo ay këru jàmbur kon tey ci huit ans yooyu suñ ma jooyloo dama koy sant yàlla. doole fee ñu ci combat bi. wallaahi gisuma ko non man làmb man lu ma si nëbbu. jàppante ngeen moom ci wax rek mu am man su ma gisoon ni moom ëpp na ma doole dama naan moom ëpp doole daan ma su ma gisoon ne dafa ma gagné dafa ma dafa mën ci galaaj ba jàpp ma xam ne sentir naa galaaj ma taxaw ni jàpp na ma si galaaj te boobaa du doon sama fët man ndax man li ñu ma sant mooy entraîner tëdd nelaw lekk ba suur ñu yor la ñu yor sama côté musique ñu ngi fi. gars yi seetlukat yu bari ni sa combat ak lagros nga gënoon a pare ci sa combat bii est-ce que loolu du dëggal wax bi nga waxoon ni Garga Mbossé nawlu wu ma ko ci dara. non non loolu moom loolu moom ah ku nekk sa xalaat rek sa gis-gis mën naa bi mu bëree Garga la ab poids que bi mu bëree Garga léegi Lac ma laa déggoon ci say wax nga ni soo amee poids rek mën nañ maa yër mais su ma jeexee rek moytul ma sama samay adversaire nañ ma. poids bi xanaa dégg ma wax poids bi ma si yoroon dañ ko dañ ko doon dindi di ko dindi di ko dindi ba ñee na ma yaa ngi jeexat parce que poids bi ma jëloon dama poids bu ma entraîné nag kii bi may njëkkee gis af ma gis nu Moussa Ndoye dañu yàpp ni nga tuutee nii da war a bëree Garga ma liggéey redouble effort bi ma gisaatee dafa ni ma non kontaan naa mais après combat la da ngay préparer di préparer di préparer amul kenn ma simee ko saa ñu Moussa Ndoye entraîné wul man yabuñu yabuma jaamu yàlla yi yor combat combat ba nga xam ne def na ay mois nga ñëw simeeku ñu ne ma kii dafa yab nit ñi ki entraîné te pourtant am na ay mbër yoo xam ne ñu simeeku ñu ne ki entraîné wul damay toog dégg reportage en direct ma toog ci sama néeg di nga ci naan ñu naan kii de entraîné wul man yàlla na ma yàlla musul ci loolu loolu gàcce la ci man ak gàcc du wax ma ne suma entraîneur ñoom dañu tëdd seen kër may entraîneur ji te du ma leen gis su may matinal ñu ngi nelaw santuma leen may ànd man duma dañ ma bàyyi dañ ma bàyyi dañ ma bàyyi su may matinal damay ànd ak ñoo war a àndal dem entraîneur ji su may physique am na ñu yor ma physique su may contact am ñoo sama contact ku si ne ak heure nga war a ànd ñoom du seen gàcce de man sama gàcce la ma simmee ko ñu ne kii ñoom bu la ñu ne ñoo ñu ngi koy topp mi ngi def lii mi ngi def lii mi ngi def lii mais ma entraîné maa hey bu ñu fontoo entraîné woo moom yabee ma ko sax samay entraîneur lu ñuy tuut tuut tuut tuut samay kilifa lañ wax entraîné woo lañ may wax ma dem liggéey yi mais taxaw xaar bi nga taxaw xaar est-ce que say entraîneur loolu lañ la digaloon arbitre bi génnee sa diggante ak Garga Mbossé dañ la waxoon xaaral wala dalal ci kaw ci kawam ngeen xeex. non lam moom sunu entraîneur dañu am lu ñuy wax buñ la santee dara gisoo ko defal li li la sa li la sa xel may nga bëre yàgg nañ ko def li si am ndam ah. pla pla ah, xeex ma xeex ak yow Garga moom du xeex man. di ci ay mbër ñu daanu nga ne du xeex. mais non mënu woon xeex ak man ñoom waxuñu ko ko santuñu ko ko xeexal mu Moussa Ndoye santuñu ko ko du dama ko daak xeex wala dara mais santuñu ko ko. sant nañ ma taxawal nga ngeen ngeen léewtoo déglu ko liir ko dox loo ko gauche dox droite liir ko bi ma ko liiree euh, boo déggee am nañu koy am nañu ko doon wax Moussa Ndoye li combat bi di xeeñ bi ko Moussa Ndoye defee ñu niil niil nag ci combat ci làmbalal bu bokk mais wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla dem naa ba man dama ni làmb ji amaana su jeexewoon niil su jeexewoon niil parce que am na deux avertissement ma am deux avertissement munu moon song man du ma songee man du ma mbëree ñu song nga daw ba fële déedéet man da nga man ñun si cercle la ñuy bëri bu songee mën naa def rotation ñu taxaw si digg fi ñu jóge fi ñu taxaw la ñu fa jóge déedéet déggoo ma de fi taxaw la ñu jóge parce que man si ni ma jàngalee bëre la dañ ma jàngal bëre si cercle. kon yow da ngaa jàpp ne boo ñu bëri man dama dem te maa ngi ci dem de boobu de. ñaar ngeen ay xale mën a bëre macha allah am doole entraîné mystique bu bëri bi lan moo ko waral yéen ñëpp parce que gis na gis nañ la tamit mystique bi na trop keroog ci sa côté. non man làmb moom laa la wax amul ma si am sangul lii takkal lii naanal lii xëppool loolu laa si am tojal lii wax dëgg yàlla dugg ci géej gi de yaa duggal sa bopp. géej moom maay dugg sama bopp géej gi maa xaaruma la maay ndox mi. ci géej gi samay maama fa nekk. ñun nuñ ah, du ay waxu télé. nuñ sant. ah lu ñu wax nee nañ maam Kumba Lamin nekk ci ndox mi ñun ñëpp samay maam lañ ay maam Njare ñeneen ñeneen ñeneen ah, maa ngi ci ndox mi daal. ak samay maam jaaral naa la fi. ngay tiit ma la lan. ngeen jëlal sa temps loo neex defal bu la neex sax dox ci kaw ndox mi dem. Mm. waaw bu ñu àndee si ndox mi bu la neexee sax doxal ci kaw ndox mi. combat bi jóge nga ci mais defet bi est-ce bett na la. defet bi. bett na la bett. bañ a bett <laughs> kala kama daan dur ko bett ma bett kay. ah déet mën ngaa gis adversaire nag ci ci ci làmb ji xam ne kii tey mën na maa daal man na ma waaw na ma ndax li tax ma séntu ma ko woon daanu. musuma ko ah ci benn si li ma na ak ci ñi ma àndal coono ji ñu daj ak coono yi ma doon daj ak ni waaye rax génnee parce que waaye rax tey bu ñu génnee un sama combat gargo ñu génnee deux euh, lagros ñu génnee deux combat bi dañoo génnee dix. pourtant am na ñuy jàpp ne sa combat ak lagros nga gënoon feesal stade bi sax xaw ma. xam nga lu waral loolu promoteur bi promoteur bi. daf ma may benn gis nga fi nga xam ne maa ngi war a fesal dafa dafa tànc sumay supporters ci ci verte bi nit ñii duñ jóge fii ñett a nga gis ñetti nit ñu uufante. parce que sa combat ak foofu yëpp yow yaa ko fesal. ma ko jël man ay huit car wàññeekuwaat na ñu ñëw euh, ci mobilisation bi huit car wàññeekuwaat na moto yi man li ma topp ci moto man na trois cent duggul moto yi dugguñu bi ma jógee SR rek moto yi ñoo ma doon ñëw indiwaat di collectionné ñëpp ni mu saan doy daan. am na leneen loo xam ne dégg nañ ci bëgg ay mbay mu wax ko muy seetlukat yàgg ci làmb nee na manque de concentration bokk na ci li la xañ combat bi. waaw moom moom suñu kilifa la maa ngi koy passage moom lu làmbaloog la lu mu wax rek gis na ko dëgg la dama koy dëggalal parce que suma kilifa la sumu kilifa la suma lépp la yàlla moo def moom maa ko bëggal suma bopp tey bu xamee Moussa Ndoye bokk na si. bi ma taxawee bëree dafa ma daf ma méngaloo ak suma kilifa la ma la la ma la ni kii moom la ma jox. tey bu daal daal làmb demee dem dem dem ba Bécaye bu ko kenn interpellé interpellé li mu waxee neneen. bu ko kenn interpellé neneen xam nga nu mu ko waxee. xam nga seetaan naa benn làmb mu ne am na luy xeeñ xam nga làmb làmb kat woon am na luy xeeñ parce que nii la doon wax combat est-ce que du combat Lac de Guiers 2 ah. combat bi yàqu yëkkini. combat la de Guiers 2 maa ngi dégg mu am na luy xeeñ am na luy xeeñ am na luy xeeñ ñu naka Bécaye lan mooy xeeñ mu day bañ nii la doon bañ combat bi foofu la waxee Moussa Ndoye bu taxawoon ni 2500 jours wax na ko Garga du song Moussa Ndoye la làmb ji di yam te est du am lu mu wàññi ci làmb tuuti. defet yi nga am nag bu ma ci jëlee bu mel ni sa combat ak Malick Niang ak sa combat ak Garga Mbossé bi passé nit ñi dañuy seetlu Moussa Ndoye léegi. combat yi mu ñàkk des fois day maas fit bi day maas moo tax mu koy ñàkk. jii non man moom làmb su ma demee ba ci tiit billaahi ma bàyyi wallaahi azim laa su ma demee bay ragal dara dara dara si làmb dama bàyyi bëri naa mbapat am si mbapat laa la wax li ma jël si drapeau kenn mënu ma ko compter. xam nga looy naan mënu ma compter ëpp na cinquante dem ba am six combats arène sans défaite sama ginnaaw mosul laal suuf mbapat ba six combats arène six combats victoire teg la six combats six victoire kuy tiit dina def loolu. ku de kuy tiit daana dem Adrien Senghor kuy tiit dina dem gaal gi kuy tiit dana dem esat di bëre mbapat kuy tiit dina dugg si àll man bi ma bëree dool foo pare yaa ma xanaa da ngay xaru bëriwul daan ga yaa yow nga daan dolf pare di tiit tiit dem ut nii da ngay bëri jiwaat man ko damay damay defari dem dugg si mbapat mi di bëri di daje gaay yi ay ñoom mbisaan ñoom ñoom ñoom ngan ñooñu laa doon mbëkkanteel ci ci làmba ji ay ngel jon ñooñu laa doon mbëkkanteel si àll barki alxuraanu karim di mbëkkanteeg ñoom dugg si dëkk ba nga xam ne onze ans làmb ji musul musul génn bi ma bëree dolf soo kon dugg naa fa làmb musul génn onze ans ma ñëw génnee ko billaahi nag so man koor laa nekk ma ñëw génnee ko kuy tudd def loolu